ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar muy xew-xew bu rëy te xewoon ci ki gën ci bindeef yi muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom def koo bëgg lool di dalal xelem lool di ko dëgëral lool mu dund ci jamono boo xam ni jamono bu metti la woon am at mu metti ci moom ba boroom xam-xam yi di ko tuddee amul atum njàqare atum mitit te mooy at mii nga xam ni mooy atu fukkeel ak benn wala fukkeel ak ñaar ginnaaw bu ñu ko yónnee at moomu nag ci la ñàkk waajuram bi bàyyi tëxam bi abu taalibin mi nga xam ni nekkoon na ndëgër lay ci moom nekkoon na it wéeruwaay bu ñu wekk ci Quraysh ñuy rusee ak di ragale Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bàyyi taxam boobule yàlla dogal ci at moomu lañ ko ñag ñu naan déete waay jàmbaaram ja di soxnaam sa nga xam ne moo nekkoon moom itam di ko jekk ci genn wet ci wàllu alal nekk financieram bu am doole te nit yàgg naa wekk doomu aadama ñaar ngir ñaar yooyu ngir dëgëraay ci daraja wala ca alal lu ci ne yonent bi amoon ci mag mu toll noonu bi Abu bin ak Xadijatu bintu Xuwaylidin yàlla dogal mu ñàkk leen ci at moom le amatul benn wéeruwaay budul borom bi subhaanahu wa taala te mu doy nag yonent bi jóge fa benn bis di seeti ay bokkam yi nekkoon Taif ngir mu man fa am wéeruwaay ak dëgëraay bi mu amoon ci ñaar ñooñu waaye lam fa fekk bokkul ak la mu doon seenu mu fekk fa ñoo xam ne ñoo yées ci bañ jëmmam ju tedd jooju ñu teeroo ko ay xeer ak ay yuux ak xeleeki xaj ba xaañ jëmm ju tedd jooju kon foofa du walluwaay kon dara desul lu dul muy ku ñuy reetaan ku naan amatul fu mu jëm amatul luñ koy ragal loo luñ koy ragale amatu ko ci diggante boobu nag la mbër mu mag mi ko fi indi di Mawlana subhanahu wa taala jóg ay pexeem ak darajaam woolu jëmm ju tedd jooju muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam woolu ko yabal jaam bu ñuy wooyee jibrail ni ko mu jëleli ma mu sallallahu alayhi wa sallam mu fekk ko ci kër sayyidatina umu aani janba masjidihi masjidi makkal mu karama <coughs> borom bi jële ko foofu àndandoog jibril ci kaw daaba ju gaaw te rafet daaba joo xam ni wax nañ ni gaawaay ba li nuy natt ci gaaw léegi dañuy wax naan baraf sàngam wala nangam moo gën a gaaw kàddu waaye kee nag moo gën a gaaw bët lañuy wax ndax fu bët bi tegu rek weem wa dafay daal di tegu kon kookoo gën a gaaw kàddu moo gën a gaaw lu ne mu jëlee ko foofu ci masjidul xaraam mu jaar masjidul aqsa yeew fa daabaam ja fa yonent ya daan yeew seeni daaba dugg julli fa rakkaam ya te foofu mooy wàccukaay bu jëkk bi fofi nak la ko borom bi subhanahu wa taala yegale mu jóge ci ar rihla al ardiya bi nga xamne min al masjid al haram ila al masjid al aqsa jëm legi ci barab bo xamni ni dana fa gëna jige boromam jige ñaay bu ag ci khaba xaw aw adna lu ko gëna jige yalla xam jige way ba waaye yonent bi jigee na ko borom bi subhanahu wa taala <clears throat> romb na ci yoon wi ay gaa yu baax kon la ko yàlla ni woon سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دنا على في ونك لجي أي آيات أي كيمان كيمان غري درجيتو تا ونكو نيو فاتون ñu mu daan dégg te leen ñu deme ni ay yonant yoo xam ne jiitu woon nañ ko muy Seydina Adama fekk na ko ci asamaan si mu jëkk jot mu tatagal ko yaatal ko laaj ko ñu wax ko mooy kan ñu ni ko kii mooy ki nga xam ni sunu borom yónni na ko ci jaam yi ci xeet wi mujj ci xeet wi mu jàmmanteeg moom jox leen teeg moom ay teraanga jóge fa nag wéy romb asamaanu ñaareel beneen yonent bu ñuy wooya Isa Isa bokk ci yonent yi mujj a ñëw mu jaar ak moom fa mu ka mu jëkk a romb di Seydina Adama ci tatagal gu ko war a tatagal ak teraange ju koy jox mu jéemu jaamu yàlla ak moom jóge fa romb asamaanu ñetteel romb fa beneen yonent bu ñuy wooyee Aruna ak Yaxya moom itam ñu def lañ seeni moroom def jóge fa romb idrisa ak ñoom Yuusufa ak Seydina Muusa ku ci ne romb na fi barab waaye fu fi romb rek ñooñu dañuy laaj kii fi jaar mooy kan ñu waxal leen ni ku ñuy wax Muhammad la ndax yónni nañ ko mbiit waaw waaw Jibril dañ koo yónni ci xeet wi mujj ñu barkeelu mu wéy ba romb maamam baayam ki ñuy woye abul anbiya seyduna ibrahima alayhi salaam ca asamaan su mujj sa yonent bi wéy na nag léegi romb ñoo ñëpp dara desu ludul wuti ki nga xam ne nii moo ko woo te mooy mawlana subhanahu wa taala lu ko doon doyee yàlla moo xam waaye bokk na ca jox ko ak jaamu yàlla gu rëy gu ñuy wooye julli nan ngay xamee ni kon julli màgg na wayaas <clears throat> wu réyee nii jaar-jaar yi mu jaar ak ñi mu romb ak niñ ko teerale ak niñ ko gàttandoo ak loolu yëpp fu mu jëm day wujji boroomam lu mu fay wuti day jëli ndigal te nag ndax bu njëkk day ndigal yàlla danaan yebal Seydina Jibril ni ko neel Muhammad sallallahu alayhi na def nangam baa na bàyyi nangam kon loolu amoon na yóbbante te xam ngeen ni borom bi subhaanahu wa taala lu mu yoral boppam day wax màggaayu loola dafay junj màggaayu loola lépp loo xam ne ni dugal na ci loxoom loola day wuuteeg moroom ya comme yonent bi sallallahu alayhi wa li ko yàlla digal yëpp yu bari bari julli am na ci jagleeg boppam goo xam ne nii lenn du ko ca te mooy mu du ko jox malayika du ko yónnee diggante dëkk ak dëkk waaye dañuy jàkkaarloo jigeñante ba nga xam ne dana doon jige goo xam ni kan nga ko jigeñal la nga koy wax du ko nattable la koy wax du ko jaawale mu jox ko julli googa muy julli yu juróom mu joxoon ko ci juróom fukk waaye juróom fukk nag diis na gan bi mu rombaatee bi muy waaj a ñibbi romb yonent yàlla Muusa alayhi salaam ci asamaanu juróomeel daf koo lu la yàlla digal mu wax ko ko mun ko loolu bari na sa xeet wi attanuñu loolu demal mu wàññi ko moo tax maw Mawlana Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne daa feeñ ci weer wi te daan baaxoo waxtaanee mbir mi daana wax ni dafa romb ab xejjam Moussa da di ab xejj ci yàlla mooy ko sañ ci yàlla moo ko ni dellul mu wàññil la ko mu dem mu wàññi ko di ko wàññi ba mu doon juróom muy lii nuy def tey juróom yooyu nag yool bi nga ci doon am ca juróom fukk ya mooy wéy ba fii may wax yow lim ba wàññiku na waaye yool ba du wàññiku benn yoon loolu ci baaxu yàlla la gu mu baaxee ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk mi lan ngay déggee ci wow voyage ak li ko tax a jóg li muy tekki mooy li ko tax a jóg muy julli réegi mu rëy ak fi mu toll yàlla amul lenn lu ko jige waxuma la lu toll ni moom de du genn jaamu yàlla goo xam ni jige na ko noonu ko yàlla jëlee ci loxol boppam jox ko yeneen yonent bi dénku ko kenn noonu la julli mel ci biir jaamu yàlla yi mooy jaamu yàlla goo xam ni kenn mënu la koo defaale ak lu ngeen jigéen a jigéen nanga doon ndey mbaa na nga doon baay mbaa nga doon sëriñ comme ci mën doon mënula koo defaale loolu moo di fardu ayni boo xam ne nii moo gën a tar ci fardu ayni yi ni mu ci wéete woon ak boroomam ci ñàkk ab digale noonu la mel ba ci kaw suuf amul digale du kenn koo xam ni mën na laa julliwaale du kenn koo xam ni mën na laa defal lenn loo xam ne loola dana taxaw taxawaayu julli du jenn jëf boo jëleen asamaan ak suuf li fi nit ñi am ci gànjar li fi am ci valeur nga joxe ko ci yoonu yàlla du tax nga mën a fay genn tisbaar déedéet mënu koo am ndax genn jullee ngi goo xam ne ni xaajalewul xaajaatalewul àgg ci jullik tisbaar muy ñaari rakkay fajar ki ñu yónni woon ci yonent bi rasulullahi na xayrun min ad-dunya wa ma fiha nee na ñaari rakkay fajar moo gën addina ak li ci biiram segam ku ndaw kooku moo gën addina ak li ci biiram mase ku mag kii ñuy julli yu juróom dara du dox digënté mak mom amul lenn lo xamni man na la ci remplacer yenen jaamu yalla yi sax leg leg nga dem ba mu yag ñu laaj la ci alal dang ko deful ñu ni waaw mu ni defel nangam melni koor nit dina ñaka wor tay ko ñu ni ko nañ ko alaman luñ koy alamané ñu ni na leel ay miskeen ba mu wor ñaari waaw bis bu nekk nga joxe juróom benn fukki miskiin ñu ni mën naa fay bis boobu nga tey bañ koo woor waaye bu dee julli nag du benn rakka boo xam ni boo dundaleen miskiin yi àddina bi yëpp mënu koo fay loolu kon mooy wone ak màggaayam mu ne aj farata la waaye li muy doon doon farata boo ko defulee kenn du la rey lislaam bu taxawaloon jaasee mit kenn du rey nit ko ajiwul ndax lan laytee mu aji ngant la moom rek ko xam moog yàlla kon ki ñu atteloo zahir du ci dugg da koy bàyyee yàlla ba mu àgg fa moom waaye julli nag moom duñ ko bàyyi te duñ ko may ngant ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mayu ko woon ngant mu toog mu yónneeku ko loolu moo tax keneen it amul sañ-sañu toog nit du julli walla ngir lan dinaa def lu ko remplacer wala dinaa ko wax mënul am mooy rasul amri wa imaduha li ñu tudde diine lépp bopp ba moo di julli te lépp nag riñaanum yonent bi wane na ko ponk gi ñu ko ponk wane na ko gis nga bu ngeen dee julli ci jumaa juma mag jee ñuy wooye Tuuba am na benn xutba boo xam ne mooy bi ubbi woon jumaa ja te alhaaji Muhammadul Fadil bind ko xutba boobee danga ca dégg mu ni julli ci biir diine mi ngi mel ni bopp ci nit saa boo ñàkkee bopp jàpp ni médecin dees na ko seeti bopp bu dagg kenn du seeti médecin julli itam diine ju mu génn amatul defar amatul baaxal baax na waaye déedéet baax na waaye du julli mënta baax ndaxte loolu mooy bopp bi mooy ndeyu mbind gi mooy baax leneen soog a baax Mawlana Cheikh Souaïbou Mbacké radiallahu taala anhu dafa bind ci benn téeréem wax ca ni bu lay misaal julli ni mu doone farata ak ni mu nekke njiitul jaamu yàlla yi ba bu ëllëgee bu yàlla yi jàngaloo waa ji téeréem bii ñu defan jëfam nga xam ne li ñuy def lépp yàlla nga koy bind mu ni bu ñu bindee lépp nag bu ñu koy liir bala ñoo nangoo liir téere bi day fekk ñu xool ba xam jullee nga ci am déet bu ca nekkul booba téere kenn dootu ko liir kenn du ko jàngati xamuñu def nga lu baax xamuñu defoo lu baax dañ koy lem sànni la waaye lu yomb dégg la mbokk mi demal ci waa ji gaayu mu génne carte segam bindal la ci ab som na def milliard na def téeméer yaa xam waaye bu ca signature amul boo àggee ca banque ba doo génne dara doo génne dara signature day am ba pare ñu soog a vérifier nag di continuer yi liir ndax ke la ko jox moo def signature bi ndax signature bi baax na ndax li nga li ñu marqué mi ci compte bi wala yooyu foofu la xool di am xool bi foofu la waaye ab bu signature amul amul xool kon bu julli amul ci jëf amatul xool ngir màggaay ga te màggaay googu yëpp jàng ngeen ko te dégg ngeen ko ci wayaas bi yonent bi def ngir moom kese leneen lu mën a doon feecam néegam lay tëdd ñu ne ko yàlla farataal nañ ci yéen koor ñu ne woor nañ bu subaa yàlla farataal nañ ci yéen aj dem leen aji yàlla farataal yéen ci asaka dem leen asaka lu ci ne jibril naan cëpp rek jox ko aaya ni ko sa borom nee na yàlla daf ko ni kenn du la ko wax maa la koy waxal ndax sama yëpp la naka jekk noonu la yàlla jëfe yéen même asaka bi muy séddale asaka li muy doon doon lu jullit yi moom ak miskin yi waaye yàlla tuddal boppam ñi mu bëgg nga jox ko ba muy tudd miraas yàlla bëggal boppam tuddal boppam ñam bëgg ñu jox la ko kon li mu tekki mooy yi gën a dëgër yépp yàlla du ko yóbbante da koy joxal boppam directement kon lii day mbokk yi moo nekkoon ci wayaasu yonent bi sallallahu alayhi wa woyaat wi jaaxaloon àddina bi mu ñëwee ñoom ñëpp dañoo kontaan ree ñoom noonam yi ñoom Quraysin ndax dëkk bi mu wax ni ca laa dem ay weer lañ daan dox ngir dem ca mu tëdd génn guddi xëy ni dem naa ca loolu dana neex lool noon yi ndaxte nag lañ doon bëgg am na ñu bari dañ caa murtat génn ci diine ni kii li muy wax kenn xamu ko ba Aboubacar ñëwee ne wallahi bu waxal lu kawe lol sax dana ko deugal ñu ne ko kon yow de abou bakr Saddiq radiyallahu taala an moy ki deugal yonent bi ci lépp lu mu wax moy ki deugal yonent bi ci lépp lu mu jëf du wax kayfa du wax lima day gëm rek la def te lol lañu digël ci bu kilifa diglé rasulullah sallallahu alayhi wasallam ligéyam bobu ak wayasam wowo loolu rek la fa doon jëli ak la ko fa yàlla won ci ay kéemaan yu wane ni mën naa lu ne mën naa lu ne ndaxte borom bi subhaanahu wa taala xanaa démb la ñuy werante ndax dem naam demul ndax lii mën naa am mënta am waaye jamono bii ngay tooge fii di wax fii ci jàkka ji ñuy wooyee jàkkay Masaalikul naan benn waay nekk ca Chine walla mu nekk ca New York yem ci yéen ci wax ji kookee de jamono boobu bu loolu xewoon lu ñu werantee ne yonent bi dem na asamaan ci génn guddi ndax tey kàddoo ngi dox lu gën a gaaw loolu ci genn guddi wala ci yenn waxtu wala ci benn seconde ki ko man nag ku ko def kooku yàllaa ko def kon yàlla mi bind ki man loolu wallaay moo ko dàq looloo taxan boroom xam-xam bu mag ba ba muy tagg Mawlana Cheikhul Xadim radiallahu taala anhu da ko doon wax ne la taajubul asbaabu anhu aqiqatan intaaha fi zulumatiha man taaha Sëriñ Tuubaa daal li ma yéem ci moom mooy sabab yi mësta muur bëtam moom yooyu nuy door a gindeeku naka jekki daa gindiku woon ni sabab amul lu dul ni borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nu koy tegal rek waaye day xam ni kiy def dëgg-dëgg kooku mooy yàlla yàlla rek mooy def yàlla rek moo man yàlla mooy amal li ci diggante bi ay sabab la te jàngal nañ ko ci wayaat bi jàngal nañ ci sabab yu bari yonent bi la yàlla soxla moo yow yonent bi bu ko yàlla soxlaa ndax amul kàttanu ci xet yonent bi rek mu ñëw fi moom ci saate waaye dafay won nit ki ne booy tukki da nga koy waajal di ngay wut ab yóbbal da nga wut waruwaay da nga laaj ku xam am ku xam jibril la am na waruwaay baru alburaax la am fu mu jëm ci borom la ñett yi boo composé ab tukki mu wog koo jàngal doomu aadama ni ku bëgg a tukki noonu ngay def faaw nga jaar ci ay sabab kon lépp looy def faaw nga boot jaar ko ci sabab waaye lay xaqiqa ba ak lay dëgg-dëgg mbir ya kenn kee mooy borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne ni faalu li maa moom rek a man moom rek a mën a def waaye kon li jaar ay sabab rek la kon nag nañu sabablu lu nit gàtt yitte lépp loo bëgg jaaral foñ koy jaaral rek dari koy am amin wu rafet boo ko jaaree feneen it mën naa am do am wut nak ba wut jeex wut yàlla mo ci gëna wér boo ko daal moy tomb bi nga xamni ni nañ ko boros ci xew-xew bu mag bi di laylatul isra'i wal mi'raj mu ne ñaari wayas yoyu muy rihla ardiya wa rihla samawiya te bu ci nekk yonent bi def ko ci benn guddi ci ay lahafat yu néew lu ñu ni woon nañ ci jaar soko ko dénkaane sunu dénkaane bopp yi nga xam ni dañ koy laabirante ci sunu biir yooyu mooy lan <clears throat> bokki jullit yi ñoo loo xam ni dañ koy tudde ni ab xëccoo la te waran te war a tudd noonu ab tànn la lool la ñuy wax mooy kan lañuy tànn mooy ki ñu wax ni dañ koy jox sunum nos ngir mu jiitenu yore sunu àddina waaye yore waale sax sunu diine ndax léeg-léeg mu rëq moom diine ji am ay rëq-rëq te ci moom lay jóge mbaa mu am ay baax baax ci moom lay jógee kon kooku bu nu signé ni jàllal ci kanam def joxe nañu sunu responsabilité bu wér boo xam ne bu wàaji jubalee alhamdulilah danañu am tuyaaba ju baree bari ci def gi nu def nit kuy jubal waaye bu wàaji dëngalee danañu am bakkaar bu réeréy ci teg gi mu fi teg waaju dëng kon nag bokk yi danuy tànnal sunu bopp ndax nit la ñuy tànn wala ku nu may tuyaaba ëllëg la ñuy tànn léeg nga dégg ko ni politique agul alaaxira juum nga doomu aadama bi mu ñëwee àddina lu mu def àddina ñu ngi koy bind ci ab téeréem li nga xëyee ba jant bi so amul leen lu muy tëb te du ko bind loolee muy tëb nag bu ko bindee ëllëg di ko jàng ci sa kanamu boroom bu dee lu baax la xam nga bu dee la ca des xam nga kon nag liñ ñuy bëgg a bindal ci lii di ñëw nan ko seet te nu dénk suñu bopp di leen dénk nuy def ndànk nanuy def ndànk ci bëgg di def ndànk ci bañ yonent benn ko digaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na di bëgg ndànk ndax amaana li ngeen di bëgg bis dina ñëw mu doonum noonu waaye na ngeen bañ dara it ndànk ndax mën am ëllëg mu doon ab xarit xam ngeen ni loolu li muy tekki nit ki bëggoon ba yàgg mu bañ la mu ciy jural bis bu ne ngeen gis ko ci télévision te demagul fa yàlla dangay dégg koo xam ne dañu koy bind li xale yi wax waar am na lu mu waxoon daaw tey ñu dégg ko muy wax lu safaan moom ñu daal di indi la mu waxoon daaw segam yaa ko man masa yàlla segam gaayee man loolu masa yàlla kon mbokk yi nanu moytu delloogu yàlla yi delloo sunuy bànd ëllëg di delloowaat sunuy band mais yaa waxoon nangam de yaa defoon nangam kon lu ci ne nañ koy def ndànk ndànk allahu akbar allahu akbar ashhadu an la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 رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة yi kon loolu nu yonent bi digal lu nekk nu def ca ndànk loolu mooy yoon wi nga xam ni moom la lislaam di woote ci lu ne amul lenn lu lislaam amul kàddu lu ne lislaam am na ca kàddu lii nag day lii mu gën a am kàddu ndax loo xam ni bu ko waa ji yoree ni nga ko bëggee nu ko neex jëfandikoo ko ci jàmm yi sëñ bi loolu responsabilité bu rëy la yow mi koy joxe seetaat ko bu baax waa waaye nag daal lay bégal ni la àggul àllaaxira ak a juum ba bu ko neexee sàcc ci bu ko neexee fen ci bu ko neexee njuuñ njaaj ci déedéet sàcc dañuy àtte rek fa ñuy sàcc waxuñu li ñu sàcc xanaa xamu leen sàcc gi gën a bon ci àddina mooy sàcc ay wate yow jàpp nañu nit daa sàcc am xar lu xar di jar bariwul yow nga sàccum réew te ni loolu yàlla du ko réglé xanaa yàlla dafa amatul bu yàlla amee wallahi di nga xam ne sàcc nga lu rëy kon kenn du ko sàcc dañuy jub tey jubal nga lawaay mbokk mi yow mii nga xam ne fas nanu la yéenee fal ci fan yii di ñëw nga tudd président de la république ëllëg li nu lay dénk mooy nga ragal yàlla boo ragalee yàlla ñëpp jariñu lu nekk nag dig ngeen ko ci bi ngeen ñuy wër nee nga di nga yombal dund bi nee nga di nga indi métier yi nee nga dinga defar transport bi nee nga di nga defar pañ mi nee nga nee nga nee nga yu baree bari waaye wallahi bi nu gën a woo te moo yor développement te doo ko tudd mooy defar sustis bi maandute maanute mooy dafa développé réew dafa am benn kilifa ci kilifay réew mi ñu yàlla dogal ñu am dara damay waxtaan ak moom benn bis ni ko Maroc gii nuy ji buñ dee feebar dama jàng benn reportage ci Maroc ñu di ko def ci wàllu médecine ñëpp jànge Sénégal kon xam-xam baa ngi fi lu waral ñuy dem Maroc di fa ji te bi ma laajee loolu lu ko waral seeni bailleur di yi nekk Maroc ñoo financé ay clinique ay boroomi xam-xam machine bu ñu soxla ci àddina bi ñu jënd ko indi lu te defu leen ko yéen itam mu ne ah ci Sénégal nga defar ko ñaar ñu jàng lool yore doctorat lekk ko dem ci tribunal ñu àtte ko nga ñàkk kooku lu lu ko tee def loolu justice bu dëgërul kon boobu développement. noppalan lool état ci tabaxi hôpital noppalan lool ci pañ mi da koy noppal ndax waa ji dina wóor ni dërëmam bii fii mu ko dugal bis buñ ko bëggee daan bis buñ ko bëggee ëpp doole justice dina jog jox ko àqam mu ñime fa investir waaye ku ñime investir léegi du kenn ngir lan waa ji ndi yaayam a nekk tribunal baayam a fa nekk wallahi boo ko joxee sa alal da koy lekk te lam la daan wax ca mbedd ma naa la dinaa la tooñ dóor la waaye dana lekk sa alal ba noppi tëj la ci kaso bi loolu lu ko waral mooy ñàkk adaala ñàkk maandu te waaye wallahi bu ñu fexe woon ba maandu am bul di kenn employé bul di kenn dund bu yomb bul di kenn lenn jëlal maandu rek teg ko ci kaw jamono lépp dox boo jëlee maandu rek lépp ay tegu ci aw yoon waaye bu maandu ñëwul wallahi dara du baax kon nañu defaraat suñu attewukaay yi waaye nag lu jafe la ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa daroon wax ni atte ñett rek la ñaari xaadi am segam foo bala jafe woon nag masa léegi ñaari attekat ñu ni ko ban ban ki xam dëgg di ko atte day dem àjjana bu ëllëgee ki xamul dëgg tey atte day dem safara ki xam dëgg te du ko àtte day dem safara kon ñaar ñetti xaaj yëpp benn ciy dem aljanna mbokk mi lii boo amee kon lu jafe la lu jafe la te àtte nag maandute mooy lan mooy àtte boo xam ne ñëpp ci yem waaye bi tubaab yi bëggee nax dañ noo wutal ay catégorie kii kenn waru koo tëj ndax député la ndax ministre la ndax nangam la daa waroon a fekk nga ñi mais garanti ni du tooñ waaye tooñkat bu amee noonu doole musiba am na ko àgg ci am garaat boo xam ne boo ko amee kenn du la tëj alors de wuute nag Seydina Aliyun karamallaahu wajhahu mi nekk amirul muminin benn yahud bokkut ak moom diine kalaame ko ki koy atte di xaadi joo xam ne moom itam jullit la wala war a war ragal Aliyun ndax mooy amirul muminin ñu ànd taxaw ci baar bi kooku tiit na ba da doon bëgg a jox Aliyun place bi mu toog ah Aliyun gàntal waaye teewul ñu àtte lu ñu doon àtte Aliyun daa gis yëfam ni maa moom muy bubb komam yowóot bee ko yore yoxoo bi ni maa moom ñu ñëw ci àttekaay bi ñu wax seenu àtte ku nekk wax saw lay sura yi mi nga xam ne mooy xaadi ji ni imam Alioune ana say seede nga xam ngeen jàng ngeen ci atte bu yàgg da ngeen ci jàng ba tàyyi ni nee na eh, nu mu ko tuddati al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar xaayida bu rëy la bu ngeen jàngoon mu ne ko waaw ñan ñooy sa seede ñu fekkee ni ñu la mën a seede ni yaa moom mbubu kom mi mu ne ko ñaari seede daal laa am eh, sama doom laata ba mu tuddee sama doom rek la ci génn mu ne ko ah sa doom gëm naa ni mooy sayidu suba bi ahlil janna yonentu nee na ñooy sangi àjjana ñoo yore sangi sa waxambaane ya waaye taxul ma nangu de ndaxte li ma jàng ci a mooy doom du seede doom du seede baay baay du seede demal wuti keneen mun ko loolu rek laa amoon ci seede de aw ma ñeneen yahud bi daal di yëngal bopp bi daal di wallahi diine ji atte lii bis ni ki tey dugg naa ci asadu an laa ilaha illallah aliyun yaa moom mbubu mi ndaxte diine ji waral na laa gënal ci sama kaw ndax yow ay amirul muminin waral na laa gënal ci sama kaw ndax julit nga waaye loolu yëpp tax mu maandu ci suñu diggante maandu googu tey dinaa wax dëgg dëgg gi mooy yaa moom mbubu mi aliyun ni ko dinaa andi teraangay lislaam may naa la mbubu mi hada huwa ndax maandu te xañ na waa ji lim doon wut mbubb la bëggoon am na ko ndax maandu te xañ na Aliou lim doon booy dëgg am na ko kon maandu te kese ci la ñu mën a dundee ci mbedd mi kenn ku nekk yi tëdd di nelaw di yandoor ak a jóg te dara du la ca fekk. waaye waa bu jëlee sa ñàkk nga de xanaa du diw diw de moom tribunal bi xam na foofu lépp addina tukki na de moo bu pays dootul développé abadan amal lu ne na or bi bari. na essence bi bari na lépp bari waaye bu fekkee ne am na ku ko mën a lekk tëdd ca tëddee su ko jàpp wallahi amatul benn njariñ yéen a ngi wax naan réew mu am pétrole réew mu nangam réew mu nangam ñaata réew fi am géeju pétrole ba noppi ndóol ñu mu matul tur waaye xam ngeen ko géeju pétrole ba noppi moo fa nekkul bu fa maandu nekkul dara du baax kon maandu te ñii dagaan sunu jëmm yii nañ ñu dig maandu nañ ñu dig maandu buñ ñu dig ceeb yomb buñ ñu diggee maandu rek ceeb dina yomb buñ ñu diggee maandu li nga bëgg lépp dana am bu fekkee ni taxawal nga maandu premier atte nga teg ko sa bopp. ana président France bale passé wu nekkul ci kaso bi ab atte ko fa yóbbu ndax atte wu ñu président Amérique te ñooñu ñoo sut. ca réew ma gën caa ëpp garaat loola moo waral tey yow mii nga def sénégalais boo diggoon New York bu le peeg yaa ngi def dëgg mën ngaa gëm mi deesu jàpp mukk ci àddina peeg yaa ngi ci dëgg kan ci sunu réew réewi Afrique yi nga xam ne maandu néewu bi ku ci mën a waat ni du ma dem ci kaso bi ku ko man kenn mënu ko waaye bu adaala amoon yow mi jub mën ngaa waat ni duma dem kaso mukk de ndax xam naa ne li koy yóbbu ni du ko def waye bu fekke ni kat man na fa am nak rew mu fen dagan man la doral man laa taqal dinaay dégg ci atte yi loo xam dafa relu ñu ni dañoo euh, diw ak diw dem na pour ñu takal ko pour ñu sarse ko la ilaha illallah pour ñu sarse waji manam pour fenal ko ba mu meuna duggu li rew muñ koy duggu ta asamaan wàccul ta adina tukina لود دفر تقول أدينا والله مولانا شيخ الخديم رضي الله تعالى عنه بني بورج مثلا أم بروبلم بوي أدم شيء أتى وكاية دون تجمل بابا أتى بني كتا قدر أنا رك بودي ما بخل دك فكون مع الحق وهل دك رك بابا خير دك أقولي لما أنا أتى سيون نيوتيا ألا يلا لي أتى وات يلا فكنا بابا أم قدك كي أم دك رك نك مملا يلا يفرر yal na yàlla far ak nun yal na yàlla teg ci yoonu dëgg te yéen ñii di bëgg a falu wala yow mii di bëgg a falu nga lawaay mbokk li ma lay dénk yow président de la république doonal sénégalais doonal sénégalais bul am région bul am département bul am aw xeet bul am tariixa bul am diine waxuma ni bul ko gëm waaye sa liggéey bii bu ci loolu feeñ bul am not not mooy lan ma de damaa soxla woon barab sàngam xam nga fa kennam mu ne waa xaaral ma bindal la këyit wallahi bu meloon ni bitugub jàllo bee doo ko bindal këyit da ngaa gëm ni waa ji du liggéeyal ku mu xamul du liggéeyal ku di xaritam te kat dañu woon day liggéeyal réew mi waaye balaa def dalaa xam njëkk dikk ni damaa soxla nangam am nga ci droit mu la yowee kan ku la fi yabal ku la man demal ci magasin bii rek ci essence su Alaaji Sagar Gueye bi nga taxaw fa ba xam sa ensaye daañu la wax ni la ndax suñ Seex Gueye la booleeg nun duñ la ko wax de dañ lay jaay nga dem ndax looloy seen métier yow fonctionnaire bi noonu nga war a met yow it këyit wi ñu teg sa kanam rek xoolal li ci yell nga def ko mu ñibbi nga def ko mu dem boo ko defee noppalu boo ko defee amu tagg tey ëllëg dina joxe ben misal du won sama aada waye damay joxe ben misal ci ben fonctionnaire buma xam te ñi may dégg ñëpp duñu ma jéppi ndax dañu xam ne noonu la deme ku ñu woyé Serigne Abdoul Ahad Mbacké ambassadeur ambassadeur la at yi mu ko def yëpp laaj leen ku ma sa dem Judda wala ku ma sa dem koy fekk ko fa abadan amul sa tante bu ñuy toog wala ngay wut ko la ko la ko la yóbbu ci kanamam du am. li nga soxla daal këyit wi nekk ci kanamam bu di këyit dina ko signé bu la nee altine la boo fekkee mu wàcc demal këram këyit wa yóbbaale na ko ngir lan dafa xam ne sénégalais lay liggéeyal liggéeyalul tariixa liggéeyalul diine liggéeyalul am réew liggéeyalul dara réew mi rekk lay liggéeyal ku ci bokk-bokk nga ci lool yi nag nan ko def suñu bopp yow mi di bëgg a fal defal mi réew mi sam réew la ki la ci wateeloon ak ki la saaga woon ak yi ñu soxla ci yow yéen a ci yem bul ni mukk dëkk sàngam dañ maa kontoroon wala diw ñoom dañ maa kontoroon wala nangam dañ maa kontoroon déedéet dañ laa war a kontor ndax ba ñu ko tuddee tànn nga war a xam ñëpp duñ la tànn waaye loo doon xëccoo da ngeen ni damaa bëgg a defar réew mi waxoo ni bu ma faloo ñi ma fal dinaa leen defar nangam waxoo ko woon wax ko rek boo ko waxee doo am de waaye da nga dinaa defar fépp léegi falu nga nag say bokk kontaan fecc ree ndax dañoo xam ne nëru laa maandu bu bokk yi kontaanee li muy tekki mooy di nga leen faral da leen làq kooku kan wane na bu yàgg ni tàcc yiñ ko tàcc moo wane ni maandu wuñu te wallahi xam na ni gaa yu maandu wuñu xam na ni yu maandu wuñu dañuy wax jamono bu nekk ñu ni président yi day duñu xam li xew ci réew mi man ko ah kay ndax nekkoon nañ ci réew mi ba muy doon gouverneur reesoo tàngam bu kilifa gi daan ñëw day defar yoon wi muy jaar peinture garab yi. takk cay drapeau mu rafet bis boo doonee président jaar fa na la waa na nga daan def la waa ji def na nga daan def la waa ji def kon yéen yëpp xam ngeen ni da nga doon tappale maanute mooy yorum réew lu nu mën a def te du nu maandu na la wóor dara du sotti nanu am milliards yu dul jeex nanu am lu nekk waaye bu fekkee ni al adala néew fi wallahi moog dara ñoo yem kon nag mbokk yi fa aleykum bil adl nañu maandu ci sunu borom subhaanahu wa taala nanu ragal yàlla ci jaam yi nanu yemale jaam yi ci seen i àq li nga xam ne ñoo ko moom nañ leen ko jox barki Dembo Ndiaye amul benn président bu ñuy wax Ahmadou Najadi réew moomu yilif ndax amul pétrole mu kay ndax amul jama axa kay lu ne la am ana Ahmad Najadi tey ma nga ci àll ba yor ay botam di sàmm di sàmm journaliste fekk ko fa ni ko waaw lu tax nga nekk ci àll bi àndul ak benn garde corps mu kon lu ma koy doyee ñu nga ah, kilifa nga di mu ne dee de doonatuma kilifa te réew mi ma yoroon sàccuma seen dërëm tooñuma seen kenn te tuuruma dereti kenn kon sañ na maa nelaw fii man ko loolu la Omar waxoon de Omar ibnul Xattaab day keroog ba délégation Faris ba ñëwee di laajte kan mooy amirul muminin ana pale ñu joxoon ko ay kiir tindiñ ni foofu la dëkk ñu ne anamu ñu ne ma nga nele ca penc ba mu dikkee daf koo xool xam nga ñooñu ay xakki xikma xakim xikma la ñu bari doon mu ni ko adal tawanamt wallahi nelaw ci penc mu ne ko waaw ko maandoo la ko teg maandoo tax nga nelaw ci penc moo tax benn boroom xam-xam noona maandute mooy sécurité boo ñàkkee maandu daal di am ñàkk sécurité ni sa garde yi bare ni sa mosaar yi bare ni fital yi bare wër la noonu la sa caay-caay toll waaye wallahi boo maandu woon am na ku la mbooloo fuuf ci réew mi buy jóg genn fetal du ko topp lu ko waral al adala kon li ngeen nuy dig lépp bàyyi leen ko te dig nu maandu bu ngeen maandoo rek ñépp dox gaa yi ñi may génne seen xaalis dugal ci société yi dugal ci lu nekk te xam na ni bu bu ñu leen bëggee tooñ nguur dina jóg تحاولين بنجلسين أك ويا لودو لول نك ريمي داي بب تيال نتشال مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته